arrahmaan arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain <clears throat> assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen balu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nangul ñu suñuy jaamu yàlla te jéggal ñu suñuy bàkkaar di ko ñaan mu yàggal fi suñu kilifa gi Cheikh Mouhamadou Mountakha te yokk ko wér ba mu àggale ay naalam nu dellusi rekk fàttalente loo xam ne dafa tollook waxtu wi ñu toll bu ñu duggee ci weeru tamxarit xel yépp dinañ dem ci xew-xew bu rëy boo xam ne xewoon na ci ndax ci la <coughs> cheikhuna ahmadul xadim radiallahu taala anhu ñibbisi woon tuubaa muy bis boo xam ne <coughs> dañ koy fàttaliku <coughs> waaye nag buñ koy fàttaliku it dañuy fàttaliku waale xutba bu am solo muy wax ju am solo lool joo xam ne sëriñ bi moom la mujj wax ak mbooloo mi muy xutba boo xam ne waris na koy fàttaliku di ko nafaraat ndax sëriñ bi dañu cee bàyyi loo xam ne suñ cee jafandoo dinañ mucc tey dinañ mucc ëllëg sëriñ bi gaaw bi nga xam ne moo tolloog fukki fan ak juróom-benn ci wooru tam xarit wi ginnaaw tàkkusaan ci la defoon xutba boobu ginnaaw bi ñu jullee timisit mu waxaat ak mbooloo mi mu mel ne dafa dénkaane dénkaane bu mat sëkk bu yaatu lool waaye it jàngale jàngale mu xóot mu matale sëriñ bi dafa digle ne mboolem taalibe yi ñi nekk ci barab bi muy njaareem ca kër gu mag albuqa al mubaaraka nañ ginnaaw <coughs> ginnaaw tàkkusaan nañu daje si ci pénc mi loola tolloo woon ak fukki fan ak juróom benn ci weeru muharram bi ñu jullee ba noppi mu wax ne tey la ñaata fan ci weer wi ñu ne ko fukki fan ak juróom benn mu ne maa ngi leen di dénk yéen ñëpp ngeen dal ca dalal njaboot gi te wàññi dox bi ak wëndeelu bi ak tukki bi lu may loo xam ne munta ñàkk loolu maa ngi leen koy dénk ba bisub gàmm ga walla ba weeru gàmm wi jeex daal ne yéen mbooloo mi yéen nit ñi na ngeen jaamu seen boroom seen boroom mi nga xam ne moo leen boyal tinki leen ngir ngeen jaamu ko ndax ñi nga xam ne dañ leen tënk moo xam la leen tënk ak kéefër la ak wedd yàlla walla bàkkaar yu bari ñooñu jaamuwuñ yàlla walla ña ko cay jaamu duñ ko rafetal dafa bokk ci àqi ki nga xam ne moo leen di xamal ndigali yàlla yi nag di ndigal yoo xam ne moo leen di yóbbu àjjana di leen bégal mbégte moo xam ne du ànd aku naqar ba faw maa ngi leen di dénk ngeen topp ko dafa bokk ci ay àqam ci yéen ngeen topp ko déglu jëfe ay ndigalam loole mooy tax ngeen texe texe goo xam ne gu sax dàq lay doon texe goo xam ne ak texe di du ànd ak moom ak texe di nekkul ca ginnaawam ndax amul ginnaaw dafa bokk ci àqi ko ki nga xam ne moo leen xamal tere suñ boroom yi tere yooyu di yoo xam ne da leen di ñot di jëme leen sawara di leen di di gàcceel di naqaral naqar woo xam ne mbégte du du ca ànd dafa bokk ci ay àqam ngeen nangul ko moytu ay tereem loola mooy tax ngeen texe moo leen di tax a mucc mucc gu mat sëkk moo leen di tax am noflaay noflaay bu sax dàkk kon sëriñ bi dafa digle jaamu yàlla digle topp yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne moo jottali ndigal yàlla yooyu di jottali ay tereem dafa bokk ci ay àqam ci ñun ñu topp ko déggal ko lim ñu digal ñu nekk ca lam ñu tere ñu bàyyi ko mu wax ne na ngeen bàyyi xel ñaari masala ñaari mbir mooy ngeen xam ne ngeen jéem a xam li ñu leen digal te di ko jëfe xam li nga xam ne moom leen lañ lañ leen tere ngeen di ko moytu na ngeen téye loolu yi ma leen wax muy ñaari masala yooyu neen ko téye bu baax ndax xam ndigal jëfe ko xam tere bàyyi ko moom mooy xam-xamu ñi jiitu ña ak ñu mujj ñi kon ku koy ku koy ku ko jëfe di nga raw ku raw ci nga rawe waaye ku gën ci nga gëne ci ñi jiitu ak ci ñi mujj na ngeen góorlu ci julli juróom góorgóorlu ci saraxe góorgóorlu ci ñaan loolee sëriñ bi dénkaane muy dénkaane lu mat sëkk yaatu lool ëmb lépp ba mu ko defee la fatu ba ñu jullee timis ba timis jotee mu ñëw jiite daa sàkku ci kenn ci taalibe yi te mooy sëñ Mat Lamin Jóob ne ko jàngal li njëlbeenug baqara Cheikh Mouhamadul Amin jàng ko ba ca wa ulaika humul muflixuun ginnaaw bi mu waxee auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi arrahmaan arrahim da koo jàng ba wa ulaika humul muflixuun sëñ bi ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko lii mooy melokaanu ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla dañoo mel ne ay ndab yoo xam ne ubbuñu ko te bënnut nga xam ne mënees na caa def ca luñ ca def dana ko téye ne ko bismillah mu jàngaat ba ca walahum azabun azim mu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko lii mooy melokaanu ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla ñoom dañoo mel ni ay ndab yoo xam ne dañ koo tëj kenn mënu caa def ne ko bisimilah mu jàll ba ca wama yu xaadiruuna illa anfusahum wama yashuruun mu ne ko taxawal ne ko lii mooy melokaanu ñi nga xam ne ay naafiq lañ ñoom dañoo mel ni ay ndab yoo xam ne dañ koo ubbi waaye suuf ga dafa bënn su ca mën a def ca luñ ca def du ko téyee ashhadu ilaha illallah ashhadu muhammadan rasulullah ashhadu محمدا رسول الله صلى لا إله إلا الله صلى إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول sëriñ bi daal di teg ne li suñu boroom wax ne yuminuuna bi ma undila ilayk nee na mooy alquran wa ma undila min qablika mooy li jiitu alquran mu ne xikma bi ci nekk ci suñu boroom di tudd wa ma undila min qablik mooy dañuy tere lii di par parparloo ni nga xam ne yahuud yi ak nasaraan yi noonu lañ koy defee kenn ku nekk ne la sa moroom nekk du dara ca guddi googee ca fajar ga ginnaaw ba sëriñ bi jullee fajar la mu a génn kon muy wax joo xam ne ju mat di bàyyi xel la ju mat di feet fàttali la mu dénkaane ci jaamu yàlla topp yonent bi sallallahu alayhi wa ci li nga xam ne moom lañu jotal ci ay ndigali yàlla ak i tereem wax nu ne loolu mooy nag yoonu texe texe gu sax dàkk waaye mu soññee ci xamlu li ñu suñu boroom digal jëfe ko xam lu li suñu boroom tere ñu moytandiku nee na loolu mooy xam-xamu ña njëkk ak ñi mujj ñëpp soññu ñu góorgóorlu ci ñett yi di muy julli ak saraxe ak ñaan suñu boroom subhanahu wa ci wàllu njàngale mi sëriñ bi xamle na ci melokaanu jullit gëm yàlla joxe azaka julli ne ca ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo texe waaye mu mel melal ci melokaanu yéefar yi ak melokaanu nafiq yi loolu lépp ngir ñu di ko bàyyi xel di ko kenn ku nekk bëgg fexe bokk ci melokaanu wala war a am melokaanu way gëm yàlla yi te mucc ci melokaanu yéefar yi ak nafiq yi wala yasubillah waaye mu bàyyi loo ñu xel lu am solo te mooy moytandiku parparloo te loola bu ñu ku ne xam na ne jamono li ko gën a yàq ci jamono ji ñu toll moo xam diggante diine yi la moo xam diggante lu mu mën a doon rek par parloo mooy la nga xam ne moo ciy gàllankoor moo cay yàq mu mel ne kon xutba la boo xam ne waxtu wu nekk dañ ko war di lu di jéem a jëfe li ci sëriñ bi digle loolu ci la suñu texe tey nekk ci la suñu texe ëllëg nekk kon loolu xutba la boo xam ne bu ñu tolloo ci weeru muharram di tam xarit war nañ koy fàttali fàttaliku doog a ñëw nag ci Euh, xutba bii nga xam ne moom la al imaam war a jàng tey ñu niñ ko niñ ko baaxoo di def suñu ñu ñu ñu tënk ko ci li nga xam ne noonu la ko waxee ci araab ñu tënk ko ci euh, wolof ginnaaw bi ci xutba bu njëkk bi ginnaaw bi mu jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne képp koo xam ne jafandu na ci alxuraan ak sunna ci lépp lu muy def sàmmoonteeg li yàlla farataal ci moom te sunnaal ko ci waxtu wu mën a nekk kooka na xam ne mooy ki nga xam ne sóobu na yoonu njub te du réer te du texee di waaye képp koo xam ne wan na ginnaaw ndigali suñ boroom topp bakkanam bi nga xam ne ñaawteef rek la koy digal kooka na xam ne soobu na yoonu texee di wala asubillah mën na képp koo xam ne xisaab na boppam fexe ba dëppale ay jëfam ak sharia sax ca dàkk bañ a wuuteeg moom kooka bu doon yaxantu mooy kii tonaw mu ne na ngeen xam ne <coughs> la ca àllaaxira moo gën fuuf gën a des kon bu kenn jënde jaay àllaaxiraam jëndi ko àddunaam mu ne na sax ci di tiit ak a jàq ci seenu mucc ndax kat seenu mucc xamu leen ko ak mucc moom nee na day topp ak njëlbeen koo xam ne sag njëlbeen rafet na sag mucc dina mucc yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne dañuy jëf lu baax seenu mucc rafet ci xujbam ñaareel bi mu fedd li lim digle woon ci ñu jafandu bu baax ci alquran ak sunna ci jëf yu ñu mën a def sàmmonteeg li yàlla farataal ak li mu sunnaal xam ne loolu mooy yoonu njub ku ca sóobu doo réer doo texeeri te képp koo xam ne wan na ko ginnaaw topp bakkanam na xam ne sóobu na yoonu di te suñu borom subhanahu wa taala moo leen xéewale kii nga xam ne ab mooy yonent bi sallallahu alayhi wa di ki nga xam ne moo tax buñ gënee ci xeet bi ci xeet yépp moo tax ñu gën ci xeet yi mu ne na bu ngeen jiitoo ca mujj a ñëw jiitu xeet yi ya jiitu woon ci ngëneelam ci moom moo tax ndax suñ boroom moo wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi taamuruuna bil maarufi wa tanhawna anil munkari wa tuminuuna billah mu wax ne kon suñ boroom digal nañu ñu fexe ba moytandiku di juyoog ndigali yonent bi salaa salaam ndax juyoog ay ndigalam mën naa jur fitna mën naa jur mbugal mu metti fal yaxdari alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum mu ne nag jëf lu baax ak jëfub safaan duñ ye duñ yem mukk ëllëg am xasiba alladina yacmaluuna alsayiaati an yasbiquuna saa ma yaxkumuun kon loolu mooy li nga xam ne moo tënk xutba bi nga xam ne moom la sëriñ bi imaam war jàng muy lu mat a bàyyi xel ndax eh, jafandu ci alquran ak sunna bàyyi xel li yàlla farataal ak li mu sunnaal loola mooy tax mucc mooy njub gi nga xam ne ku ca soobu da nga texe ca doo texee di yàlla nañ ko suñ borom subhanahu wa taala defal boole ñi nga xam ne dañuy sax ci ak njub di moytu li nga xam ne moom la ñu suñu borom subhanahu wa taala tere di ñaan suñu borom subhanahu wa mu yàggal fii Cheikh Mouhamadou Mountakha yokk ak wéram ba mu àggal ay naalam te lépp lu mu sumb suñu borom kàttanal ñu tawféexal ñu àndoo ak ak moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 الحمد لله الذي خلق العوالم وزين السماء بالنجوم والأقمار وأضاح بها الأنجاد والأغوار وأظهر فضل نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم على جميع خلقه في جميع ما مضى وما ياتي من الأنصار من الأعصار وصلى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولي الأيدي والأبصار أما بعد فيا عباد الله من تمسك في كل الأعمال بالكتاب والسنة وحافظ في كل الأحوال أتى على ما فرضه وسن فقد اتباه هداه ولا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن أمر ربه وأطاع الأمر بالسوء faqad faqad jafaa wa arada li asbaabi shaqaa wa man xaasaba nafsahu wa waafaqa shariicata amaluhu wa daama alayhi wa lam yuxaalif faqad rabi wa aclamu an maa fi laaxirati xayrun wa abqaa wa alaykum an laa tazuulu xaa'ifiina waajiliina mushfiqiina min xaatimatikum li annahaa xayru macluumatin lakum li anna alxaatimata tatbau saabiqata wa man asnat saabiqatuhu salimat xaatimatu jaalana allahu wa iyaakum miman sabaqat lahu min allahi alxusna الحمد لله الذي خلق العوالم ليريهم ما لحبيبه صلى الله عليه وسلم من عظيم مقدار وصين به الأكوان وأضاه به الأنجال والأغوار وأظهر فضله على جميع خلقه في جميع ما مضى وما يأتي من الأعصاب نشكره تعالى على ما حبانا به من ضغائن الخيرات ما ما تكل عن حضرته الألسنة والأقلام وأن نبرح من حولنا وقوتنا براءة إذهال الاستسلام أما بعد فيا عباد الله تمسكوا في كل الأعمال بالكتاب والسنة وحافظوا في كل الأحوال على ما فرضه وسنة فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكر ربه وأعطاه الأمر بالسوء فقد جفا وتعرض لأسباب الشقاء fa innahu subhanahu manna alaykum bi nabiyikum alladi kuntum bihi afdal al umam wa sabaqtum bihi wa in taaxartum man salafa minhum wa taqaddam qaala taala kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi taamuruuna bil ma'ruufi wa tanhawna anil munkari wa tu'minuuna billah wa qaala aydan falyaxsari allazina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azaabun aliim wa ma sawa subhanahu bayna almuxsini walmusii yowma aljazaa am xasiba alladina yacmaluuna alsayiaati an yasbaxana saa ma yaxkumuun wafaqana allah wa iyaakum li tariqati lmutla wa alhamana iyaakum litadabburi ma alimna min alquran yutla yaxfiru llahu lana wa lakum allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaat hayya ala alfalah qad qaamat salaat allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah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 ذكرت الخاشية بدون يومئذ خاسة عاملة ناصبة صار نار حامل مستقبل عامية ليس لهم طعام إلا من ضروري لا يسمع ولا يقوي من جوع وجوع يومئذ نائمة وسيئة رادية جنة عالية لا اسم فيها لاقية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأتباع موضوعة والمعافى مصرة وغرابي مبسوسة afalaa yanzuruuna ila al-ibili kayfa xuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibaali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fa dakkir innamaa anta mudakkir lasta alayhim bi musaytir illaa man tawallaa wa kafar fa yu'azzibuhu llaahu al-'adhaab al-akbar inna ilaynaa iyyaabahum thumma inna alaynaa hisaabakum asalaamaaleykum. asalaam.